autorités concentrées yi gouverneur préfet sous préfet ñu gërëm leen ci seen taxawaay ak service départementaux yi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey service régionaux waa ministère du commerce maa ngi leen di gërëm leen sant bi ma ñëwee ci ministère ba léegi noppaluwuñu amuñu sax jotu seeti leen euh, def euh, li ñuy wax visite de courtoisie ku ci ne fa nga ne yaa ngi doxal liggéey bi ni nga ko war a defee ba ku ci ne euh, yaa ngi ci région yi ci département yi bi ñu tàmbalee nag li njëkkee mooy informer boo leen seetloo président le 5 novembre la jëloon ndogal yi waaye bi mu ko jëlee bàyyi nañ ba le ba le 12 maanaam samedi bi ci topp ñu door a rendre exécutoire mais ba ba ba ba datu 12 sax fukki fan ak ñaar ci weeru novembre commencé wuñ contrôle ndax dañ bëggoon xibaar bi dugg bu baax ci askan wi dugg ci gox yeeg goxaan yi ba ku ne xam lan mooy sa njëg loolu nag ba mu eggee le 14 lañ tàmbali. la 14 bi ñu ko tàmbalee gis nañ ne téeméeri boutique yoo jël juróom fukki ak juróom benn ñu ngi koy def ni mu waree. biñ demee ba ci talaata ak àllarba bi gis nañ ne téeméeri boutique boo jël juróom benn fukk ak juróom maanaam 65 pour cent ñu ngi koy respecté démb ci alxames bi rapport bi mu mujjee jot nga xam ne diggante dakaar la ak Fatick ndax ñoom ñoo njëkk a seeni prix egg nañ ci juróom-ñaar fukk ak juróom ci téeméeri boutique boo jël maanaam 75 pour cent de taux d' application loolu nag am nañ ci satisfaction ndaxte ndar xëyul rek sotti am na loo xam ne boo ko tàmbalee da ngay may nit ñi ñu am xibaar bi ñu ngi def ay amende ak yooyu mais du li ñu gënal li ñu gënal mooy ñu jëfee ko ni mu waree ku ci ne am ca lang nga ca war a am waaye population yi nga xam ne ñoom ñoo tax président de la république def effort yu rëy yooyu juróom té juróom benni téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards ñu yokkaat ci juróomi milliards fii ak at mi di jeex déwén ñu nar ko defaat moo xam ci essence la moo xam ci mburu la moo xam ci gasoil la moo xam ci courant la moo xam ci ceeb la moo xam ci suukar la moo ci dëwlin la moo xam sax ba ci fer bi nit ñi di jëfandikoo pour tabax moo xam ci ciment loolu yëpp ñu bàyyi ko xel bu ko defee ku ne def ci la nga ca war a def ñuy sant UNACOIS jàppoo UNACOIS yeesal assise GES ñoom ñëpp boo leen seetloo ñëw nañu ànd ak ñun ngir waxtaan ak commerçant yi union nationale des boutiquiers du Sénégal ñoom it ak fédération yi ñoom ñëpp ñu ànd fu ñu dem rek taxaw ñu waxante dëgg ndaxte liggéey bi ñoo ko bokk bu fekkee li sooxee ci ministre bi la ñu wax ko bu fekkee li sooxee ci service yi la ñu wax ko bu fekkee li sooxee ci importateurs yi la wala producteurs yi ñu wax ko bu fekkee ci grossiste yi la ñu wax ko bu fekkee ci demi grossiste yi ñu wax ko bu fekkee ci détaillants yi ñu ko liñ ci jublu du xalab kenn wala du duma kenn li ñu bëgg rek mooy defar li nga xamante ne mooy li ñu dénk bu ko defee ku nekk jëfandikoo ci ndaxte ñun ñëpp ay consommateur lañ leneen li nag mooy fii ak bi di dee danañ jublu ci luyaas yi ñu ngi ciy liggéey bu ko defee décret bi nga xamante ne moo ko war a ñoŋal dina génn euh, décret bi nga xam ne tamit mooy organiser taux yi ak commission nationale de régulation bu boobaa tamit dinañ def tournée région bu nekk dinañ fa teg comité régional boo xam ne ku am jafe-jafe foofu ngay demee jooytu sa mbiru luyaas bu fekkee sa locataire du la fay fa nga koy waxee bu fekkee tamit ki nga xam ne moom moom kër gi doon sa bailleur respecté wul wàññi yi di dafa koy waxee bu fekkee wàññi loon nga nit ki 2014 mu bëgg nga wàññi laat ko 2020 2022 fa lañ koy waxtaanee agence immobilière yi tamit ñu woo leen ci liggéey bi gis naa ne ñu ngi def conférence de presse waaye ñun ñëpp a bokk ñu amee jafe ñu ko wax ñu toog waxtaan ndaxte mbir mi waxtaan la rek bu ñu waxtaanee dinañ juboo bu boobaa tamit ñi ngi sàkku ci chef de quartier yi délégué de quartier yi ñi nga xamante ne ay euh, président comité de quartier ñu jàppale ñu ci ndaxte ñoom ñoo gën a xam quartier yi bu ko defee mbir yi di bañ a egg justice ndaxte diggante kuy ut ku fu mu fanaan ak ku koy wétali jafe-jafe warta am bu ñu toogee waxtaan rek danañ am déggoo boo xam ne ñëpp dinañ ci mën jëriñu. pour oui euh, sur le loyer bientôt nous allons euh, mettre en place euh, les textes réglementaires qui organisent la baisse. et aussi euh, les, les, euh, les catégories de logements qui sont concernées. À cet effet, nous ferons encore une tournée pour voir euh, les structures. Nous allons mettre en place une commission nationale de régulation des loyers. Une commission qui aura comme compétence de connaître des litiges entre bailleurs et locataires, qui pourra aussi connaître des litiges entre bailleurs locataires ou bailleurs agence immobilière, agence immobilière locataire. Et tout cela nous permettra de pouvoir, euh, dans les meilleurs délais, euh, avoir un dispositif qui fonctionne. Et nous avons beaucoup appris euh, des baisses de 2014. Beaucoup nous disent qu'il n'y avait pas d'effectivité. Il y avait de l'effectivité, mais peut-être qu'il y a eu des manquements ou des oublis. Et sur cette base, nous avons travaillé et nous sommes ouverts. Aucune œuvre humaine est parfaite. Nous sommes à toutes les réclamations, à toutes les corrections. Nous sommes ensemble, entre consommateurs, bailleurs, commerçants, importateurs, producteurs. de façon à ce que la consommation au Sénégal soit un milieu apaisé, concerté et transparent. Je vous remercie.